merci. Serigne Saliou Thioune fils de Cheikh Béthio et Sokhna Aïda Diallo ex-épouse du Cheikh se crêpent le chignon. En effet, huit mois après le décès du Cheikh, c'est la première fois que les Thiantacounes célébreront le Magal dans la division. La question, le Cheikh serait-il en train de se retourner dans sa tombe? Il laisse derrière lui une division, une guerre larvée. entre son fils Serigne Saliou Thioune et sa jëwriñ universelle et ex-épouse Sokhna Aïda Diallo Thioune. Son fils Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée crie Urbi et Orbi que Jannatou Mahwa c'est son fief. Le fief de son père et personne n'osera venir le disputer avec lui. Quant à la jëwriñ universelle Sokhna Aïda Diallo Elle clame haut et fort sa préférence pour Ngabou à cause de sa position géographique sur la carte religieuse de Touba. Ngabou se situant à 3 km de Djanatou Mahwa, à quelques dizaines de kilomètres de la mosquée de Touba, et fut fondée par Serine Touba Khadim Cette dernière a reçu le ndigal de Serine Beto de passer désormais le Magal à et de prendre en charge tous les villages limitrophes de cet endroit sacré et béni. qui fait de cette année Sokhna Aïda Saliou ainsi que tous les Tchantakoun qui sont sous sa tutelle feront le Magal à Ngabou. Malgré les apparences, la tension est vive entre les deux camps. Il y a des risques cependant d'affrontement. Car, quoi que l'on dise, le fils de Sherbet Tchoun, Serine Salih Goltapé, n'a pas fini d'installer sa suprématie dans la vie des Tchantakoun partis voulant fêter le magal de son côté et les Chantakoun divisés ne savent pas sur quel sens vouer. Les rivalités sont telles que chaque parti était au Mali pour acheter des bœufs. Naïda Diallo s'est vu procurer plus de 12 000 têtes de bœufs, alors que Serine Salih plus de 8 000. Pour éviter les affrontements entre disciples Tchantakoun, désormais de guides différents, le ministre de l'Intérieur, Ali Ndiaye, a pris toutes les dispositions utiles. Naïda Diallo, veuve de Cher Betchotchoun, sera en Gabou, tandis que son fils, Serine Salih Lui sera à Jannatu Mahwa, où son père célébrait le Magal. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'est longuement entretenu avec Serine Salitoun sur les dispositions pratiques concernant l'organisation du Magal, sur la sécurité, surtout avec le risque réel de troubles en cas de présence concomitante entre les disciples de ce dernier et ceux de Sorna Aïde Diallo. En attendant, le 17 jour du Magal. di leen nuyu bu baax baax di leen sant bu baax seen teewaay. ñu ñëw fi nga xamante ni moo di Ngabou nekk fi nga xam ne mooy uh, géntum soxna Aida ñu bëggoon rek ngeen wax ñu ci wàllum nag yi naka la demee. waaw nag yi liñ ci mën a wax mooy ndigalu sëñ Béthio ndigalu sëriñ Saliou Mbacké soxna Aida moom deful sëñ Béthio mooy def jëf ji nga gis jëfi sëñ Béthio la. sëñ bi ñu ko moo ne ko yaay man maa yow boo ne soxna Ayda moom amut sëñ Béthio am moo amal lii lépp nag moo tax jëf ji mën a am ndax mooy lépp moom nag moo ko doxali nii ndax doxul man man waaye man manu sëñ Béthio dox moo tax mu toll nii mu toll te lii tàmbali la ndax ma nga fa nekk di ko doxal te ak seegut ñun nag dañoo nekkoon fii di réceptionné waaye lii ñuy wax sax ak lii fi teew soro yoo lool ndax xolam moo rëy waaye nag sëñ Béthio la xolom bu rëy boobu sëñ Béthio la ñun nag dañoo booleek moom nga ànd leen moom ndax ànd moom sama jublu la jëw kii taxaw mooy kase jon universel kase soxna si ñoo toog ak moom moom moom la jiital ci liggéey bi ci ci jëwriñ ci liggéey gétt gi ñu ànd ko moom nag te ak taalu bi rek la ñuy dox ndax ak taalibe moo am tey mooy njëriñ tey mooy jariñ ëllëg lay wax sax naan ak bokk ak yooyu waaye yooyu amul solo lem solo mooy ak taalibe Sëriñ Tuubaa ki muy jëriñ mooy ku ko jox sa bopp jox sa lépp mu jariñ la waaye ak mbokk amul solo mbokk maywul dara Sëriñ Tuubaa ku ku am ci moom danga nga ko wonuk taalibe ba nga jënd mu jaay la waaye kase mii nag dañoo ànd ak moom nag ah liggéey bi noonu la tëddee waaye nag ñu ñaanal soxna si yéeneem ak seegut ndax lii ak lañu dégg li ma ci ba nëgë ni te moom ba tey mangay def te lii daanaka xajagul fii bon xam ngeen ni kooku de kenn mun a lépp waaye nañ ko ñaanal mu yàgg te wér waaw kase moom naa ko bàyyi ndax moom mooy yor doxee di mu wax. ayca jëwriñ kase gannaaw bi nga xamante ne li nga xam ne mooy di ab gént gi yow gétt gi yow lañ ko teg sa loxo lan nga ñu ci mën a wax. ah liñ ci mën a wax mooy lépp ak cant la ah, lépp tamit kéemtaan la. kéemtaanu sunu borom la ndax yàlla mooy dogal te Serigne Touba mi nga xam ni lu ñu xam ci diine xam ko ci spiritualité xam ko ci mbirum yàlla ci yërmandeem la nu ko xamee moo ne kafaani al xaadiru wal muxtadiru maa haazo min al xanaa al xadaru سلمت كل يوم ويوم بنفسي سيبتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدنيا الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي سرايك ما خديت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله